Yeah. Dolbeski. Dolbeski. Come on, man. sa ñaar loxo xaaral ñaar loxo laal xaaral sa ñaar loxo maam Ndiaye sotti seex bi la seex bi. waaw sotti maam Ndiaye. seex bi la loxo yi loxo yi loxo yi. sotti sotti sotti waaw dafa ànd Yeah. xalafe sagina waxa amu seexira Ini keringan nih. Baax na daal ba suba Günaydın günü yayınlar. Günaydın günü. Kurum geldi. Aku mu ni ko

ah dafa tàng dafa tàng mais ko baat moom mu ñëw ko eh murid murid murid kii mais ko baat moom ko do dafa tàng waaw ngeen dégg li ñu xool xaar xaar ma ngi may sa xol ni ki fu ne ko ne may ko wu ya ko ma sigi tuuti yow ay mi ko dañ ko boole ma ñaaw pare ngeen tim wala ji wala fay ba ba ki ba xam nga mer nañ oto waaw. ñu la doon laaj nan nga gisee seet ak topp yi ñoom ñooñu noonu yéen seen yàqu gën a noo. ah xaw ma seet bi wala.

waaw ma ne fenn kee mooy mooy jël affaire yi wala yéen xam nga. ah ma yow yaa dem nga rafetlu. waaw fu mu koy def. maam jaar ñun nii lay toogee sax wala.